xarit maa ngi lay siyaar di la fay di nuyu mbokku amateurs yi di nuyu ci yi si bi di nuyu fépp Sénégal la nekk rek ñi ci bitim réew at biir réew mi maa ngi leen di siyaar di nuyu waakaat ab xarit lay fay. la nga ñëw arène waa démb li waral sama teewaay arène nationale benn euh, Petit da doon bëre. donc vraiment mu nekk booy boo xam ne di profité di ko félicité deuxième bi Lac Rose di bëree Lac mu nekk sama ñaari sa euh, Petit sama jarbaat la xale bu yaru ndangu entraînement respecté ñëpp wax dëgg yàlla euh, plus Lac Rose bi nga xam ne yàlla def na ne ñoo bokkoon écurie Fass ba mu fa jógee tamit ñu sekk relation yu rafet ba ñi koy ñi ko yor nii di ko entouragé muy ñoom Pape vraiment yàlla def ñu sekk ay relation yu rafet ñëwoon démb nag pour soutenir ñaari booy yooyu Euh, Lac Rose at euh, Petit vraiment moom mooy indi woon esaat. Mhm. Lac Rose avant combat bi jotuñu woon déggante lu bëri donc mi ngi woon ci ay préparation am mhm. donc jour combat bi nag ñëw naa vraiment euh, ñëw ba phase bi phase bi rëkkee sama yaram daw ma wàcc vraiment indil ko sama présence sama soutien vraiment motiver ko davantage parce que. Lac Rose gëj na bëre gëj na ci làmb vraiment boole koog blessure blessure bu mu bu mu vivre tey mu ñëw ci làmb ji vraiment ñu ñëwoon pour apporter ko sunu soutien motiver ko vraiment ñaanal ko apporter woon ko pour mu yàlla yóbbu ko ci ndam malheureusement nag euh, làmb at sport moo demee noonu euh, Quench bi nga xam ne tey moom la yàlla jox ndam ñu ngi koy féliciter vraiment di ko ñaanal ndam di jikko di encourager waat Lac Rose parce que il a pas démérité parce que ku xool combat bi mu bëri démb. li mu manqué bëri na mais wane na jom wane na fulla demb ko xool Lac xam nga ni manqué na contact manqué na sparring partenaire ba jeex na ci làmb ji lagros premier premier round bi jeex na tàkk mais ab njàmbaar day nekk ci nit wane njàmbaar wane détermination ba combat bi jeex tey bëre ba jeex tàkk ku xool lagros Rose nu mu daanoo xam ne dafa jeex tàkk waaw dafa jeex tàkk donc wane na njàmbaar ñu koy encouragé di ko ne mu mu mu gën a góorgóorluwaat àdduna da ngay toll ay période carrière surtout ci carrière day demee nii mais il faut savoir se relever di ko ñaanal yàlla yàlla may ko xolu muñ yàlla mayaat ko combat vraiment ba mu mën a ñëwaat ci ay ay meilleure meilleure meilleure qualité am waaw état de forme bon mitigé na ku gis Lac démb indi na doole indi na masse mais ku xool physiquement contact peut-être desoon na Lac desone na contact te desoon na contact dese woon na tamit repère xam nga làmb tamit boo ci boo ci gëjee da ngay da ngay da ngay manqué repère démb démb ma lak manqué na repère malgré que boo xoolee jàmbaram sax moo moo tax mu bëre combat bu mel noonu mais normalement lak warul woon bëre combat bu mel noonu parce que euh, physiquement xam naa ni boo ko xoolee ba combat bi jeexee sax jooy yi mu jooy mooy wane ni moom li mu bëggoon yëpp yëpp yëpp amu ko ci combat bi mais wane ne ñàmbaar wane ne fulla waaw wane na njàmbaar wane na la te loolu rek lañ ciy laaj loolu rek lañ ci soxla wane na la wane na njàmbaar teewul yàlla xañ na ko tey mu xam ne làmb noonu la parce que tey ñun ñëpp jaar nañ ci carrière jaar nañ ci carrière gis nañ ni parfois euh, euh, mbir yu mel ni day day arrivé day ñëw day ñëw ci mbër léegi nag li koy may mooy nga nga mën a am xolu muñ mën a nangu dogalu suñu borom xam ni tu encore jeune boo liggéeyee mën nga ñëwaat e, ñu ñaanal ko yàlla yàlla may ko vraiment mu mën a liggéeyaat ba mën a ñëwaat ndax Log dafa bokk ci làmb demb ku xool làmb ji ni mu neexee vraiment ba suñu yaram ñun ñëpp wàcc tàng ñu ñëw jàpp ci mooy war ni Log dafa bokk ci làmb te dafa am lu muy représenté Grand Dakar ñaari tali du lu ndaw tey kuy représenté lu mel noonu tey gis jéem ñaari tali nu ñu génnee Grand Dakar ñëpp jóg soutenir ko jàppale ko moo lay wan ni Log bokk na ci làmb góorgóorluwaat revenir at en force nekkaat ci ay am ñaanal ko yàlla combat bi muy ñëw yàlla yàlla may ko ci ndam tey vraiment xaadim suñu consultance bi vraiment dafa xaw a dafa xaw a difficile parce que xam nga wala sama mbër lañ daan waaw sama rakk lañ daan sama xarit lañ daan donc moo tax du xaw a du xaw a cohérent mais parce que combat Maodo ak ñëpp loo waa équipe waaw boo gisee ni tey boo bu ko amee bés ñëpp ñëw dafa rafet tey Gris mooy tête de file ba euh, ñoom Baara Ndiaye général tey ñu ñu gëjoon gis tey ñëpp ñëw mooy wane ni loolu mooy Fass tey dañu war a boolewaat loolu vraiment re fexewaat ba euh, recensé waat ñëpp ñu ñëw mooy les tanoor mbër yu ndaw yi ñëpp ñu fexe di fexe di àndaat. di bokk di entraîner di bokk programme di liggéeyandoo fexe créé waat lien bi nga xam ne moom la Fass amoon bu njëkk je pense que loolu ci rôle Gris Bordeaux la nekk moom miy tëddeful euh, remobiliser waat le euh, le groupe de l'écurie Fass fexe waat amaat yeneen perspective euh, ci làmb parce que parce que Fass dafa bokk ci làmb vraiment Fass bu ñàkkee day metti ñëpp day metti ñëpp donc te am nañ ñu fa nekk am nañ potentiel ku xam ku xool ak démb xam ne démb physiquement bu pare woon physiquement démb combat bi da ko da si doon génn tranquillement mais manqué contact da ko da ko dañ ko dafa dañ ko seetlu ci làmb ji ba nga xam ne tey euh, jeexal na mais ab ñàmbaaram at mën a bëreem at mën a bëreem sax moo tax mu tenir moo tax mu tenir ci combat bi. léegi ñëw ci combat bëree ñoom ñaar. waaw bi ñu bëree ñoom ñaar donc waaw ni ñu dañu corps à corps arbitre dafa sifflé ñoom ñaar ñu ñu lewtoo euh, coin opté pour jàppante. ah Lac Rose opté xeex mais dañoo jotuñu xeex ñu jàppante biñ jàppante ci ci bëre jot nañu bëre xeex tuuti taxalikoo waat ah am na benn moment Lac ci uppercut yi vraiment jot na touché touché Quench coup yu bëri mais Quench démb dafa déterminé rek pour pour jeexal combat bi et te en plus Lac ci biir combat dafa war a teel a wane te dafa war a teel a wane si si ñu Fatick. Euh, Quench dafa teel a gis ni Lac sonn na mais boobu moom tamit nanguwul jël risque pour jeexal combat bi parce que kuy bëreeg lagros doo jël risque yenn risques yi parce que lagros ku mën a wax dafa mën a bëre te am na noo koy songee bu la dóoree uppercut mun na la wàññi tey loolu yëpp démb Quench sóor na ko lagros jeex na bu yàgg mais ci biir bëree mi ngi sonal mi ngi sonal mi ngi sonal Quench ci ci xeex bi am na benn moment jaayu na ci kawam xeex ak moom Quench déterminé rek dem jàpp. ba mu ko jàppee bugg ko bënn Lac Rose sukk benn om bi tu boo xoolee def na ko trois fois ci biir combat bi mu bugg ko bënn Lac Rose su sukk om bi mais deux fois yi da ci génn mais troisième fois bi fekk na physiquement Lac jeex na jom jee fa nekkoon rek boo xoolee sax jël bi final finalement day mujj amee parce que euh, euh, coince da ko mujjee pousse rek mu tëdd parce que boobu vraiment Lac jeex na euh, noonu la combat bi commencé noonu la jeexee mu nekk combat bu neex tamit ñaari mbër yi vraiment bëri nañu vraiment amateurs yi kontaan nañu waaw wax dëgg yàlla ñii kontaan nañu ñii kontaan nañu mais nag c'est le sport làmb moo demee noonu donc euh, Quench moo gagné làmb moo gañe Lagrosse moo perte nag jugaat góorgóorlu takkaat ngembam ñëwaat ci làmb xam ne bokk na ci làmb. tey làmb waa Lagros solution bi rek mooy ci limu mu dynamique bi mu nekk nii delluwaat Grand Dakar dajalawaat waa Grand Dakar dajalawaat jeune waa Grand Dakar ñi nga xam ne ñoo koy encadré vraiment dynamique bi ñu nekk nii mu mu bañ a bàyyi mu bañ a délaissé ñu continuer parce que tey ku xool démb qualité bi combat euh, lag bëre démb gëj a bëre ñaata at nga toog bëre woo ah nekkoon ci ay blessure jóge ci blessure ñëwaat vraiment bëre qualité combat bu mel nii tey combat bi mun nañu wax ni c'est c'est motivant tey kon ñi koy gunge nañu ko newaat di ko gunge ba dynamique bii mu nekk mu gën ko continuer euh, peut-être bu amaatee beneen combat gis ni kat ah vraiment euh, ñëwaat na ci làmb comme gëjoon na ci làmb ba ñëwaat ci làmb ñamaat na géew bi bu mu ko gëj a ñamaat nañ ko nañ fexe tout mu teel a amaat benn combat nekkaat ci dynamique mën a continuer dynamique préparation bi mu nekkoon nii. tey euh, Coence kan waa Coence tey mën na bëreeg ñëpp parce que tey boo xoolee. Euh, moo Diène Kairé seen combat ba euh, machine yi la woon ah kon combat la boo xam ne combat bu neex la boo xam ne bu ñu mën a leeral parce que euh, Diène mi ngi ci yoon Quench mi ngi ci yoon daje woon nañu mu të kon combat la boo xam ne dañ ko war a tëggaat pour ñoom ñaar ñu mën a tàqaliku nag définitivement ci làmb. waa Diène Diène Diène am na combat mook Zarko mais comme da ma laaj ma ne la combat la boo xam ne bu neex la parce que comme. jéen euh, sa waay génn ci lagros ah sa génn ci lagros tey bu jéen génnee ci lagros bu jéen génnee ci lagro euh, bu jéen génnee ci zarko mun naa wax ni moo coince combat événement la parce que mooy mi ngi mel ni combat euh, Balla Gaye Modou Lo bañ koy door di précipité voilà amateur dañ koy soxlawaat parce que ñoom ñaar foog ñu tàqalikoo ci làmb parce que coince mi ngi ci yoonam boobu ba léegi vraiment di raxas booy yi jéen tamit gis nañ ni vraiment dafa bokk ci làmb te ñu bëri dañu am yaakaar ci moom tey mu mu jël ko koo xam ne tey actuellement euh, mun nañu wax ne def bokk na si ñuy def bruit ci làmb muy Zarko tey bu ci génnee tey day mën a taxaw mën a dugg ci pratiquement ñoom Sa Thiès ak ña ca des ak ña ca des mais tey euh, combat am ak euh, Quench vraiment combat la boo xam ne ñaari espoir la yoo xam ne dañoo war a ci làmb waaw dañoo war a tàqalikoo ci làmb vraiment dina doon combat bu neex Quench tamit mun na bëreek ñu bëri ah mun na bëreeg ñu bëree bëri bëri parce que actuellement boobu ba léegi mi ngi def performance mais ni mu war a progresser progresser wu ko ci làmb adversaire yu mag yi mu war a am amagu ko ci làmb mais tey bii bokk na tey si lu ko jëlee ci benn ci benn ci benn kii yóbbu ko feneen parce que combat bi mu jël bi mu daan Lac Rose ak combat bi mu jël ci Lagros tey fekk na ko mu jëlee na ko ci benn pli yóbbu ko feneen xëy na tey am na ci Lagros ndam xëy na tey mu ngi mi ngi séentuwaat waaw mi ngi duggaat ci beneen catégorie le temps jéen tamit di def euh, euh, yoonam fële. jërëjëf Khadim di nuyuwaat rek ko amateur yëpp di kontaan trop vraiment ci collaboration 4appuis ak Balla Diouf donc xam naa ne nag léegi mu jeex contrat bi mi ngi waaj jeex mais contrat bi mi ngi waaj jeex. waaw gars yi xaadim nee na yéen a ngi seetaan mais abonné wu leen kon abonné wu leen ah, bés ah, flèche bi vraiment di jot notification yi parce que 4appuis vraiment c'est des jeunes yoo xam ne wax dëgg yàlla dynamique ah pragmatique ah di seeti gars yi di waxtaan ak ñoom te ñoom bañuñu vraiment ay critique ñu tamit ay conseil conseils ñu dara donc ñoom ñu ngi nii ubbeeku ubbi nañ seen porte abonné leen jàppale ay jeunes lañu vraiment seen liggéey la ñu yaakaar te ñu ngi koy def ni mu waree vraiment jaa ngeen jëf peace and love